وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت mu ne wa amma talaaqun daal fase foofu moom maxuusun lu nu jëlee la min xawlika sa wax ne atalaqtu boyal naa an naa xasa gërëm ba fam talaxat mu daal di boy soo leen jëlee baatu ak talaq sa gërëm soo ko jéngee dindi jéngi ba daal mooy boyal nga ko sa jabar tamit moom bu moom bu mu sëy bi bi nga xamante ne dañ ko dañ ko takkoon seen diggante yaa ko takkoon si si yow lañ ko takkoon soo ko tekkee mooy fas nga ko mooy beer nga ko ida asaltaha soo ko yabalee min iqaalin bàyyi ko si jéng aw qaydin mbaa tënk soo ko tënkee mbaa nga jéng ko nga daal dindi tënk tënk bi mbaa jéng jéng bi mooy fas nga ko mooy kon fa kullu zaati zawjin bépp borom jëkkër bépp jigéen bi borom jëkkër muutaqatun lu ñuy ye ku ñu yeew la inda zawjiha si fas jëkkëram mu ko yeew si jëkkëram waaw buum boobu nag jëkkër jee ko moom loolu bu ko neexee rek mu teg ko door te ida faaraqaha nim taqali ko nag moom atlaqaha mu boyal ko mu ñuy saaq yi si jéng jéng ba wa talaaqu fase nag lugatun si luga al inqitaau mooy dog mooy dogoo waaw si luga mooy dogoo mooy bàyyante wa zihaab ak dem wa silaaxan bu fekkee ci sharia nag xallul ismati mooy fecc buum al munaqidatu buy aji bay aji fasu bayna zawjati diggante ñaari way dencante fekkee ci sharia nag mooy buum bi nga xamante ne moo fasoon diggante ñaari way dencante muy buumu sëy bi suñ ko feccee loolu mooy tuddu talaq ci sharia waaw mu ne wa hada lii nag fecc buum boobu nag am nun mbir la boo xamante ne jaalahu def na ko allahu yàlla taala mu kawe mi bi ajil azwaaj yi si loxo jëkkër yi dina zawjaati wari si jabar yi yàlla mu ko jox jëkkër ñi ñoo yor bu boobu yàlla si loxo jëkkër ñi la ko def kon jigéen moom fase ko waxu moom ala qismayn aji nekk la si ñaari xaaj mu baaxun fase gu dagan huwa moom talaaqu sunna mooy fase sunna wa maxzurun ak fase gu nu sib boobu moom talaaqul bidaati mooy fase bidaa alaa mu waaye mu ko sib soo ko defee tamit fase gi tàbbi na waaye def na def na lu ñu sib mu ne waxu moom soo ko xamul ak talaaqu mooy fase salaasan ñetti fase fii kalimatin waaxidatin ci benn baat comme may naa la sa baat xamante ne ñetti fase na koy considéré sa jabar soo ko fase ñetti fase ci benn baat loolu moo tudd talaaqul bidaati wali talaaqi sunnati ñen la fasem sunna nag shurutun ay sart waaw an takoona bu njëkk bi an takoona mooy mu nekk al mutalaqatu ka ñuy fase man bokk ci jigéen ñi nga xamante ne taxit dinañ gis mbërëg benn waaw kon jigéen di gis mbërëg mën a ko fas wa an laa takun ta mu nekk xaaidan di aji gis mbërëg wa an laa takun mu bañ a nekk xaaidan di aji gis mbërëg jamono ji ñu koy fase tamit mu bañ a nekk jamono ji mu gisee règle naa war a xaar ba mu làpp waaw wala nu fasa mu bañ a nekk tamit di koy gis dina ci wasin waaw jigéen jamono ji muy gis mbërëg wala jamono ji muy génnee dina ci wasin dama jo mëno ko ci fas waaw mu ne wa an takuna ta mu nekk fii tuhrin ci laab goo xamante ne lam yamat sa laalu ko fii ci laab ga te mu laab te mu nekk ci laab goo xamante ne yow laab laab googu laalagoo ko si mu gis mbërëg ba mbërëg mi arrêté mu laab laab googu nga bañ ko si laal soo ko si laalee benn yoon rek mënoo ko mënoo mënoo ko fase fekkee fasen sunna ngay topp waaw wa an yutalliqa ta mu fase fii si moom waaxidatan benn fase soo koy fase tamit wala ko fase naa la ñetti yoon da nga naan ko fase naa la benn fase périfiser benn bi fase naa la benn fase te soo ko fasee benn fase tamit du génn kër gi du ñibbi ci kër gi lay lay nekk ngeen nekk ci biir kër gi di nuyoo di def lépp mais nag doo leen tëdd doo leen ci xalal bi nuyoo di def lépp waaw li fekk idda gi jeexul li fekk idda gi jeexul nag mën nga ko fayle te moo ñetti weer yi mën nga ko fayle na ko fayle naa rek mu mu dakaat sa soxna dégg kon wa man qaala ku wax li zawjatihi ñeel soxnaam ne ko anti yow taalixun kun fase nga fa hiya loolu waaxidatun benn fase la xataa yéen yi ba te mu yéene ci ah wax jooju ak xare lu ëpp min zalik si benn fas loolu nag dafa yéene lu ëpp benn fas kon boobaa li mu yéene mooy compte wal xalcu simmiku simmiku talxatun fasala baani baa inatun guddi aji fàcc fase goo xamante ne laa rajaata fiiha amul fay la wa in lam yusammi talaqan donte lay tuddul fase tuddul baatu fase sax mais ndaw si ñëw na jox ko li nga ko cene woon mu nangu ko ah kooku moom lañ tuddee simmiku loolu bu ko ndaw si defee ñoo doon damaa bëgg simmiku ak yow jël fas bi nga ko cene woon jox la ko nga nangu ko soo ko nangoo rek ah sëy bi tas moo tax mu ne wa in lam yusammi donte lay tuddul talaqan baatu fase ida aatatu nem jox na ko moom ndaw si shay an dara yaxlawuha bihi mu namm si summiku ah summiko moom si loolu mu ko jox min nafsi si boppam moom jëkkër ji mu nangu ko boobaa summiku na summi summiku na waaw wa arkaanu talaaqi ponk fase arbaatu ñeenti la al awal bu njëkk muuqiu talaaqi mooy aji tabbel aji tabbil fase gi mooy ki nga xamante ne mooy fase wa shartuhu shart nan si moom an yakuna mu nekk musliman di jullit mukallifan doon mukallaf kon yéeféer su fase fase wérul ndax moom takk gi mu takk sax ah nekk gi mu nekk ndaw si légalul ndax takk ko ci lislaam waaw kon su fase kañ fase bi légal kon sart na si moom mu nekk jullit nekk mukallaf kon xale su fase fase wérul kon falaa yanaaqidu du fasu talaaqul kaafiri fase mu yéeféer wala sabi du jaagan ndaw xale su fase tamit fase bi wérul du fasu wala man nu jaagan koo xamante ne zaala dem na aqlu xelam bi junun si dof aw irma in mbaa xëm aw naxi zalika maa ngi dégg yooyu li fi noonu tamit koo xamante ne xelam dafa dem moo xam dafa dof mbaa mu xëm mbaa njóog yooyu fase boobu tamit légal lu mën a war sakaraanu ak aji màndi bi xam ne si sàngara aw nabi lin ma sën waaw képp koo xamante ne danga màndi te li la màndi nekk lu arab ni ki noonu soo fase fase bi waaw fase bi am na ñu ne légalul waaye nag almashhur li ñu siwee lu fuur talaaq yi mooy wuyu fase bi li li siw nag mooy su ko fasee fase bi ñu wér fekkee ne li mu li mu jëfandikoo ba màndi dafa dafa nekk dafa bokk ci li yàlla araamal comme sàngara maa yu demee noonu kon boobaa su ko su ko naanee ba màndi su fasee soxnaam ñeneen fase bi day wéy xaala wax na fi jawaahir si jawaahir wa zaahiruhu li feeñ mayaz am la huwa al muctamid wa muqaabiluhu lazim wala yumayizu fala talaq wa fadu masa ana istamala amdan ma yuridu aqluhu mën a waxtaraza bi qawlihi bi xamrin aw nabisin mu ne waxtare na wattandiku nag bi qawlihi si waxam bi xam ni si sàngara aw nabisin ma sëng sëng waaw am ma si li nga xamante ne law shariba su ko naa su naanoon labanan soow aw akala mbaa mu lekk taaman ñam xalaalan bu dagan aw dawaa an mbaa mbaa garab médicament mu naan ko fa sakala minhu mu daa si mandi nee nan loolu fekkee dafa naan sàngara dafa naan sàngara mbaa mu naan loo xamante yàlla su ko araamal bi maanaam su fasee soxnaam li ñu siwee mooy fase gi day tàbbi mooy fekkee nag dafa naan soow li nga xamante yàlla ko daganal soow mbaa mu lekk ñam lekk si lu bëri ba mandi mbaa mu naan médicament boo xamante ne daf ko mandi neen boobaa su fasee soxnaam fase bi du wér waaw waaye fekkee nag li mu utilisé li mu jëfandikoo dafa araam nag su fasee soxnaam fase bi day wér day tàbbi waaw moo tax mu ne fay nëw ndaka moom in talaqa nem fase na soxnaam fii tilkal xaali si bile melokaan laa yazamuhu du ko war talaaqun fase ijmaani si duñ dëppoo asaani ñaare ba si ponk sëy almahallu mooy mooy bërëb mahall waxumu azawjatu mooy soxna wa shartuhu lan sa shart nag milku zawji mooy moomeelu jëkkër gi ismatul mar'ati eh yow mënoo tëj sa gémmiñ daa moom nit ñi mu ne ismatul mar'ati bu mu jaba ji qabla talaaq li njëkk fas waaw kon maxalle bi nag li ñu si charte mooy jëkkër ji day fekk mu moom bu mu ndaw si du njëkk mu koy fas mooy fase mooy mu takk ko si takk bu saali soo ko takkee si takku sa takk ñu ngi sàmm bëggee nga takkee ko soxna kon boobaa buum bi yaa koy moom kon boobaa loolu boo dee buum bi seen xolo la ak taalif ñettee ba alxasdu mooy jublu mu ne fa man képp koo xam ne sabaqa jiitu na lisaanuhu làmmiñam ila talaaq yi mu si fase lam yaqa du tabi alayhi mun talaaqum fase képp koo xam ne da nga doon wax ba si yàgg rek am lu sooy salaam nga wax baatu fase wala yow fase naa te jubloo ko si woon nee na fase boobu du tàbbi wala yaqa du tàbbi tamit talaaqul mukrahi mukrahi fase mu ko ñu forcé koo xam ne dañ ko forcé kii ma la ko paaka maa jaay si na ko fase sa soxna mu fase ko nee na fase boobu tàbbiwul araabiu ñeenteel ba allafdu mooy baat aw maa wala loo xamante ni yaqum dina taxaw maqaamahu taxawaay baat mil fi adi si jëf dégg nga amal lafdu daal baat nag seen xasim bu ñu tëggali ko ilaa sarixin si si baat gu wér wa kinaayatin ak baat bakkantal wa maa adahuma ay ndoog ñoom ñaar mu ne fa sarixi wax ju wér maa mooy wax joo xamante ni fii nekk fii nekk na ci lafdu talaaqi baatu fas nga ne ko fase naa la baat boobu am na fas fas wala nga ne ko anta taaj anti taaj yoo xam yow ku ñu fase nga na am baatu fasoo de kon loolu mooy lafdu sarix mooy baat bi wér ala ayi wajihin si bu mu si anam kaana kaana ala ayi ala ayi wajihin kaana waaw num baat bi nu mën nu mën nekkee rek waaye am na baatu fase loolu mooy lafdu sarih mislu comme nga ne mislu an yaqulu comme mu wax ne anti yow taaliqun kun fase nga taaliqun kuñu fase nga aji fase nga taaliq mooy aji fase nga aw anti wala yow mutallaqatun kuñu fase nga kon say zamu dina war dina ko war bi hada talaq si bi da fase kon waaw su waxee ñaari baat yi fase gi day tàbbi wala yastaqidu aajowu ila niyatin si yéen dégg nga wa mutlaquha wa waaw wa mutlaquha waaw wa mutlaquha fase gi nag waaxidatin benn fase lay doon su ko waxee baat bi fase gi benn fase lay doon illa aynu mu yéene nag mu yéene si fase ga ak sa lu ëpp benn fase wal kinaayatu ak baatu dàkkantal moom kinaaya nag qismaani ñaari xaaj zaahiratun li feeñ wa muxtamilatun ak lu ñu jamtal fa zaahiratu li feeñ mislu qawlika mooy comme nga wax sa soxna nag anti yow xaliyatun ku wéet ci man nga wala nga ne ko anti yow bariyatun ku dañ ci man nga loolu mooy lafdul kinaaya loolu dàkkantal la tuddoo fase mais li nga si jublu mooy fase anti yow xaliyatun ku wéet ci man nga wala bariyatun ku dañ ci man nga yooyu moom ka sarixi comme wax ju wér la fi annahu naka moom laa taxawul deful nangu daawaahu wooteem fi rajo talaaq si lu fase waaw kon su waxee baat def ne juum ma si fase kenn du ko nangu dégg nga wal muxtamilatu baat bi jamtalu nag mbit lu nga ne ko idhabi demal wan sarif yi sotteekul mu ne fatux boobu def na nangu daawaahu wooteem fii nafsi si dàqam mu aradihi ak limam waaye baat yi nag soo ko waxee ba pare ne juum ma si fase den ko nangu dégg nga ko demal dana ko sottikul ah soo ko waxee pare lu jublu ma si fase def na ko nangu ma ne ko ne man dama toog seen toog seen kër waaw ñaari wa adadihi ak lim bi fa ida fa ida daa dem woote ne ne annahu na kom araada namm na ak talaaq fase fekkee nag wax ji nga wax ida bi demal wala sottikul ne moom moo wax ji ba xam ne fasale si namm kon waa fal mashhur li ñu siiwee annahu na kom yokkum day nag talaaqandiku ñu fas wa amma ma naa li nga xamante ne yaqumu day taxaw maqaamal lafdi taxawaayu baat anwaaun ay xel la min ha bokk na al ishaaratu junju al mufhimatu buy xam ne ni fase nga si jublu waaw junju goo xamante ne day xam ne ni yow junju gi fase nga si jublu soo ko defee tamit day taxaw taxawaayu baat comme soo ko waxoon fase naa la yow mu'tabaratun lu ñuy xalam la lu ñuy considéré la mel axara fi si kullu koo xamante ne mënul wax dafa lu kooku su junjee junj boo xamante ne day xam ne ni fasale si nam dañ koy considéré kooku fasale dañ koy jàpp ndax moom mënul wax su talaaq si fase wa min ha bokk na si tamit si yi nga xamante ne day taxaw taxawaayu baat ah kitaabatun bind kitaabatu talaaq bind fase su nga bind leetar bind bind ci ne fase naa sama soxla yónnee ko ko kooku su soxla si jotee ah eh, su- bu su soxla si jotee eh, boobaa eh, kon fase gi day tàbbi minal qaadiri si aji attan alal nutqi si tudd nga xamante ne mën na wax a pare mu bind lettre ah jël benn fooy bind si fas naa sama soxna kooku tamit si ñuy considéré yi ñuy yi nga xamante ne soo ko defee dañuy fasa gi day wéy si la bokk fa in kataba nem bind na alkaatib alkitaaba lettre ba bi talaaq si fase waxoo moom aazim muy aji dogu ala talaaq si fase kon waqaa dina tàbbi ali si moom maa li nga xam ne katabahu bindoon na ko fekkee da ngaa bind si lettre bi ne fase naa sama soxna te dogu si ah kon boobaa li nga bind day tàbbi dégg nga wa in katabahu nem bind na ko xayru aalim te nekkul di aju dogu si fase gi waaye bind na ko rek falahu ñen na ko radduhu dello sem maalam yablugu yablugi li fekk jotul si lettre ba almaratu soxna sa dégg nga fekkee dafa bind lettre te dogu si yónnee ko pour ñu jotal ko soxna si ah su ko neexee mën na ko delloo si li fekk àggul soxna si su xasee ba àgg soxna si nag ah seen seen seen diggante tas na sëy bi tas na waaye fekkee daf ko bind nag te dogu si ah donte àggagul sax su sëy bi tas waaye fekkee dogu si nag su ko neexee mën na ko dellu si mu ne fay zamuhu dina ko war mu ne wala wa aqada su façon a talaqa fasa bi qalbi si xolam jaaziman mbir muy aji dogu si min xëy taraddudin si lul deng-deng fay fa fii wuqui talaaqi aji nekk la si tabdik fasa gi ali si moom bi mujarradi zalik si si si raflet yéene gi dong yéene gi dong ba xam yéene gi dong mën na tas sëy wala mënu ko tas tas ah ba xam day dog seen diggante wala du ko dog mais loolu riwaaya tay ni am na si ñaari riwaaya yii ne day saba si jëmm yéene gi dong rek tas na sëy bi parce que nag di ko tudd wala ji zagan nag ay tazawaja mu takk arrajulu waaye imraatan jigéen li xillaha ngeen da ko daganalal liman ñeel ki nga xamante la fase woon na ko salaata ñetti fase ndax jigéen soo ko fase ñetti fase mënatoo ko takk li baalu zawji loolu dafa am benn dëkk dëkk jóg fase ko nga doog ko fase nga doog ko mën takkaat waaye fekkee nag dangaa fay nit na ko dangaa bëgg nga takkal ma soxna see sama soxna dama ko fase te mënatuma ko takkal lu baalu zawji léegi nag dangaa bëgg nga takkal ma ko soo soo ne amee ñaari mois wala benn mois nga nga fase ko pour mën ko takk mais loolu lu tax mu dagal mu dagal na lu tax nga mën ko takkaat dégg nga te kooku sax kooku nga xamante ne intention bi mu am mooy takk ko amaguma ay semaine wala ay quelques jours fase ko pour kee mun ko takkaat kooku suñ ko xamee kenn du ko may te suñ ko fasee tamit fa- fas bi suñ ko fasee tamit sëy bi wéru dafa ne walaa ji dagan ay tazawaja mu takk arrajul koo imi atan jigéen lii xillaha ngir na ko daganal li ma ñeel ki nga xamante talaqaha fas woon na ko salaata ñetti yoon te su ko su ko takk tey ba fase ko walaa yuxilluhaa du ko du ko daganalal daalika loolu du tax loolu mu tax mu daganal ko te du tax euh, euh, loolu loolu euh, fase googu tag googu waaj takk ko légalul tag bi nga ko takk légalul kon euh, euh, fase bi tax nga mën jotaat ci sa soxna soosu nga fase woon ni sa fase mooy euh, dañ koy takk si takk gu wér si takk sharia takk gu légal te takk goo xamante ne yow doo ko yëgu sax doo yëgi doo yëgu ki nga xamante ne moo ko takk waaw su ko fasee nag nga dugg ko mën takk waaw ma tax mu ne walaa yaxilluha zalika loolu du ko daganalal yooyu sax def na fi sëy ba xablal binaa li njëkk xaraf ga wa baadu ak ginnaaw xaraf ga suñu ko yëgee li njëkk xaraf ga suñu koy fiiri suñu ko yëgee ginnaaw ba mu ba mu jotañ loo seqee tamit ñu koy fiiri waaye nag in fu si xam ne fiireef na ko baadahu ginnaaw xaraf ga falaha ñen la ndaw sa almusamma lu ñu tuddoo waaw mooy li ñu waxante woon fekkee da ko waxoon ñaar junni laa la jox wala un million laa la cane ah loolu ñu tuddee woon ñu dina ko jox fekkee ginnaaw xalaat nga lañ ko firi wa man talaqa ku fase na imraatahu soxnaam salaati ñetti fase lam taxilla du dagal lahu ñeel ko mi- bi milkin ci moomeel wala nikaaxin nu jaageen sëy xataa tankixa ba te mu xataa tankixa ba te mu takk ko zawjan xayruhu beneen jëkkër ba fase ko ngay doog a mën takk donte jigéen ñi su nekkoon sa saxan hmm, nga fase ko ñetti fase si ginnaaw gi am ku mu am euh, ñu ñu jaay la ko mu nekk sa jaam hmm, du tax nga mën tëdd ak moom loolu dafa am beneen jëkkër ah ba jëkkër ji fase moo tax may lam taxi loolu bi milki ci moomeel wala ni kaa xam ni jaay sëy xataa tankixa ba tey mu takk ko zawjan jëkkër xayrahu ku dul moom fasun qaala fi risala walaw hu ñel na ko ay kan kala ñel lil mutallaq ñel suñ fase ñel aji fase zawjatahu soxnaam ñel na ko arrajatu fayla fillati si ndaw si nga xamante ne tax yu di gis mbërëg maalam ta dox lu fekk duggul fi la xaydati saalihati fi mbërëgu ñetteelam fi la xurrati si gor aw fi saaniyati ma mbërëgu ñaareel fil amati si jéebéer waaw soo fase sa soxna benn fase mooy fasam sunna mën nga ko fayle lu fekk duggul si mbërëgu ñetteelam waaw te mooy lu fekk amul ñetti weer dégg nga ndax jigéen su wéree weer bu nekk war na gis mbërëg dégg nga li fekk duggul si ñetteelu mbërëgam nag mën nga ko fayle waaw fekkee gor la fekkee ji fekkee eh, fekkee jéebe la nag li fekk duggul si mbërëgu ñaareelam waaw mu ne arrajaatu fay nag yem li ko xaa dina ko mu ak zawju jëkkër fii kulli talaqin si bépp fase boo xamante ne naqasa wàññeeku na adaduhu limam ani talaati wala si ñett bépp sëy boo xamante ne lim gi dafa wàññeeku te matul ñett te ma- te- te matul ñetti fase ah jëkkër ji ko neexee mu fay la ko waaw maa lam yakun li fekk nekkul maahu ji ànd ak moom fidaa um njot aw maa woo loo xamante ne lam yakun nekkul ala wajhi mubaaraati si anamu fayantoo wal fi jët ak njub fay na maa xama ne kaan dina nekk lu ko jukkaleel aba yaatu fayle maa lam tan xadi di fekk jox ah jox ay dëgg di fekk ay dëgg jeexu daal te mu ñetti weer fekkee got fe wala ñaar weer fekkee jàmm mën nga ko fayle laa nil ismata naka bum ndax bum laa nil ismata naka naka bum bay na zawjani bu nekk diggante ñaar way dencante laa tan xaticu du dogu bi ma du du dagg bi ma duna salaat si lu gis ñetti fas waaw moom bi nekk diggante ñetti way ñaari way dencante ah lu yées ñetti fas yi mënu ko dog ñetti fas yi rek moo ko mën a dog tappi fil xurrati si gor ida lam yakun lam yakun maahu ji ànd ak moom fidaa um dëkk maanaam tan xadi bi fekk jeexul ala iddati idda ba war a jaatu fay la nag takun day nekk bi nit si yéene ma al xawli ànd ak wax aw bi nit mbaa si yéene bu ne xawli wala si wax waaw benn nga ne ko fayla naa la mu daal di jeex yéene gi nag wax gi day ànd ak yéene mu ngi ko yéene sa xol pare ah ne ko fayla naa la mbaa nga yéene ko dong fa inna waa nim yéene na fi nafsiha ci boppam annaha annahu na kom rajaaha fayle na ko faqad saxad wé wér wér na rajaatuhu faylen fekkee dafa yéene si boppam ne fayle naa sama soxna dafa commencé sëdd ak moom ah kon waa ñee naan fayle gi wér na fii maa bay na si ne si li nekk si digganteem wa bayna allahi taala ak diggante yàlla waaw waaye wala wala win farada su wéetoon allabdu baat duna niyati wala si yéene la ma saxa du wér waaye soo ko dee fay naa la dong te yéene woo ko nee noon du wér waaw du wér la ma saxa du wér lahu di ko ñeel ak rajaatu fayle bi dalika si loolu fii maa baynahu si li nekk si digganteem wa bayna allahi taala ak yi nekk ci diggante boroom bi subhanahu wa taala mun a walwat walaal nag bi duuni niyet si dul yéene laa yakun di nekk rajaatan xeele waaw ñëw rek ku ma tëdd ak soxna ah bàyyi woon ko lu mat ay benn weer ñaari weer am envie ñëw commencé tëdd ak moom ah te yé te yéene woo fayre ko ah mu ne loolu tuddul fayre njaaloo la tudd walwat boobaa laal ga xaraam araam la soo ko laalee te yéene woo fayla ko boobaa yaa ngi njaaloo mu ne wa fil ishaari aji nekk da ci seede nag alal alal rajaati ci fayla gi ba xam soo fayla sa soxna dangay wut ay seede yu la seede wala doo wut ay se- ay seede nee na am na ñaari wax yu wuti bil wujubi si war gi wala ba ak sopp gi am na ñeen dafa war nga wut ay seede ñu ñu see- ñu seede ko am ñooy def duñ ko sopp